asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mën da Ousmane Dramé bu la de conscience comme niñ ko rafare defe rek mun xoolee lu jeng wala lu weng wala lu jaar yoon ñaari dañuy jóg indi ci suñu xalaat muy xalaat yoo xam ne nag euh, du lu may wax man képp mais lu may séddooloo ak askan wi fenn fu ne ma jële fa boole leen taqal leen ba bu ma ko indee ngeen mën a dégg li ñuy wax tey dañoo bëggoon a jëmee ko ci ndox mi nga xam ne am ndox bu Sénégal demee ba ñàkk ko ba ñàkk ko ngeen xam ne defuñu dara ci suuf defuñu dara ci suuf defuñu dara su am ndox day farata suñ diine laaj ko suñu wér laaj ko suñu dund laaj ko ba tax na nii nga xam ne moom la demee ci biir Sénégal gàcce la topp ay po ay làmb ay sabar ay ñàkk fayda leen ba xale yi tey ndox mu bon a dañuy naan dama lii gàcce la ma bëggoon bokk seetaan vidéo bi bu vidéo bi jàllee nag ah nu indi ci suñuy xalaat di ci sàkku seeni xalaat te xam ne jóg jot na asalaamaaleykum waa waa Ndoulo ñu ngi tey euh, Ndoulo fii tey si ñàkk ndox bi si forage Ndoulo si mbirum Aquatech te yéen ngi xool fii maa ngi si jàkkaarloo si kër Ami Diop ñii nu ñuy rangalee paan yi si mbedd mi lan moo tax waa Touré euh, si kanam ñooy ne benn citerne ndox te ñëpp jigéen yi mag ak ndaw ñoom yëpp ñu ngi di rang tey pour jéem a am tuuti ndox lu ñu mën a dugale si seen biir kër yi kon coono bi la jigéen yi ndulo yi xale yi mag yëpp jànkoonteel fii si Sinduloo oto baa ngi nii may seen nii si kanam si naaj bu tàng bi yëpp ñi ñu ngi nii di jéem a kenn ku nekk jéem a xool nu ñu def pour am ndox kon mbir mi gaat na lool xale yi ñu ngi nii jigéen yi ñu nii ñun ñëpp di war jéem a wër ndox kon waa autorité dañu war a gestu waa Ndoulo yépp ñu xool nu ñu war a def pour jéem a uti ndox mbir mi mbir mi tar na lool lool lool lool lool lool xoolal naaj bi mu tàngee nii yëpp ñii ñu ngi di raam vraiment métti na nañu gestu parce que mbir mi bu ñu continuer nii bu ñu continuer xool leen xale yu gare góor yi jigéen yi yëpp ñu ngi nii taxaw yëpp pour jëm ut ndox kon mbir mi métti kenn nañu xool du ñu war a def waa Sonas bisimilah. semence yi loo gis si coono ndox mi nag. sonn rek sonn rek. nekk naaj bi gis na ñu ngi nii naaj bi di root. wallaahi jërëjëf kon leer na leer na kon bi mu leer na yàlla mu sotti si jàmm ak salaam yëpp gouvernement ñoom ko teg seen mbaam mi yëpp dañoo wopp ngir uti ndox kon nañu kilifay gestu ñu xam ne ñu daf léegi bii si teen yi fu bàyyi ko Touba la bàyyi ko Touba si kanam moo indi fii ndox mi tey si Ndoulo pour waa Ndoulo mën a am lu ñuy naanee tey. mu waral mbir mi tey kon dañu war a gërëm bu baax a baax waa waa Touba si kanam si lu ñuy def mbir mi du muy tàmbalee ba mu ngi tàmbalee depuis le 17 février boo tey jii waa Touba si kanam saa su nekk dañu gëstu ànduloo pour yëm leen indi ndox mu ngi suturoo ba si biir kër gi kon dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax a a baax tey ñu ngi si 14 février mars ndulo ñu ngi ne di jéem a uti ndox kon mbir mi métti na lool lool lool kon tey nag affaire Diouf moo yore pour ravitaillement waa dëkk bi yëpp waaw noo bokk seetaandu vidéo bi te am naa yaakaar ni du gan ci noonu lii Sénégal bu ne gis na ko te lii dama ëpp na ñeen fukki at ba juróom fukki at rek li ñuy dundee rang ci robinet xeex ci am ndox te am ndox kat day bokk suñ suñu diine ndax boo seetu doo mën a jaamu yàlla am ndox dafa bokk suñ suñu dund muy farata. kan door waxtaan wi kan door waxtaan wi asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañu di suwaatoon tey war waxtaan ci loo xam ne farata la loo xam ne euh, ban ko waree maîtriser ak léegi lum néew néew war naa ëpp deux ba trois siècles muy am ndox am ndox dafa maase ak baat boobu ñu naan sanc am ndox dama ne dafa maase ak juddu doomu aadama am ndox day farata ba yàlla samp ko ba noppi door a samp leneen ngir doomu aadama yi yittewoo gun ko yittewoo te seenu dund soxla ko euh, avant ñuy trouver baatu Sénégal baatu senegaal wala ñu bëgg a fàkk ab barab tuddee ko senegaal euh, dama ne lum dee dee dee la fa war a jëkk mooy gaaranti ndox ma kon ndox euh, dafa nekk loo xam ne mook dunduk doomu aadama ñoo ànd am ndox dafa ànd ak diine ndax foog nga set sell door a mën a kàbbar julli am ndox euh, bu fekkente ne amuñu ko duñ mën a dund dund gu normal te am ndox bu fekkee ne dafa salte jàngoro képp képp lay yóbbee askan wa nga xam ne ñoo koy jëfandikoo am ndox lu waay gàtt xam-xam lu waay gàtt xam-xam bala ngaa sanc kër ndox ma war na laa jiitu te ndox ci Sénégal foo làmb dañ ndox dama ne foo taxaw ci Sénégal doo gas mukk mukk cent mètres trente cinq mètres cinquante mètres te amoon ndox am na ci dëkk yoo xam ne ci demee ne Bawol ay seyaan ña fa da ngay wàqi tuut ndox mi tàmbalee bal nga tàmbalee roose say garab walla defar say salaat wala loo bëgg boo dee Bawol tool yi dër yaa nga fa dem ci rudda ñaay la même chose tool yi dër yaa nga fa boo wàqee ndox génn boo ñëwee région de Thiès la même chose surtout Thiès doo gas mukk vingt te ndox mi génn kon bu fekkente ne noonu la deme euh, jubluwun ci ndox mi ba heure bii ba forum mondial delloo war a ñëw senegal pour di waxtaane am ndox gars yi nangu leen ne senegal xam-xam amu fa kan bokk nangu ne boroom xam-xam yéewoowul Sénégal ndax am ndox képp ba ci biir capital bi jigéen ñi gis ngeen leen xale yu ndaw yi dañoo yanu ba dagg ci loo xam ne si man ko waree am ak léegi yàgg na xale yi ndox mu bon la ñuy naan nga xam ne àdduna bi fi mu toll léegi nit ñi ngi développé ay chips nit ñi ñu ngi ci la science artificielle nit ñaa ngi dem ci asamaan si ak dikk nit ñi dañuy nekk ca ko sànni benn bomb mu daanu ci digg ndakaaru nun lu tëddee di nelaw te defe na noonu ñoo gën a yeewu ñëpp am ndox ku incapable incapable munoo amum ndox dama ne ab dëkk waroo koo am dama nit bu incapable incapable trouver ndox wërta sanc fenn nit la koo xam ne nan ko ba mu dem moo ko rabu àll yam kan waxante dëgg rabu àll yi sax dañuy wër ba trouvé ay déeg bu maree ca la ñuy dem xeex naan waaye Sénégal fa mu war a def xaalisam du ko fa def mukk ci àdduna seen o bala may dégg la o CNO buñ ko naree jox xaalis état bi da koy politiquer xaalis ba Gaston Mbengue lañ koy jox mu tëgg ca làmb yéen ci bëri ngeen toll furti furti comme mbaam ah arena boo xam ne ko dara xool leen arena bi dimbali boole ponk ñu yanoonte dóorante fi suuf ah di ngeen mën a defar robinet yi mën a jox xale yi ñu lekk mën a jox xale yi ñu jàng waaye furtu furtu bëre comme ay mbaam ah luñ am tabax koy stade ah dama ne stade bii ku ko defoon ci ndox mi ku ko def Sénégal gépp ñu naan ba màndi waaye bëgguñu Sénégal naan nit moom bu fekkee ne posene képp nga ca xalaat war nga ko mën a bañ a joxum ndox waaw war nga ko mën a joxum ndox xel nit ci làmbali nekk ak bëri ak furti furti loolu moo ne ci suñu bopp réew mi ñëpp daañu torox daañu faatu senegal nit wéeru fa nit wéeru fa ndox mi baaxut ndox mi dafa am loolu ñu naan plomb plomb jàngoor la joo xam ne am ndox a koy joxe ak pënd boo xam ne dafa am calcaire ak ay mbalit yoo xam ne ko sànni ay sën yooyu da koy joxe ay taataa fu taa ba gis ba suuf si lekk ndox ma pënd boobay jóg day joxe plomb plomb doon jàngoro joo xam ne dama ne ku dul yi mënoo ci dara jàngoro joo xam ne bu day jàppee dalay transformé ba nga wow kong tuuti bu la fekkee ëmb ëmb nga di ko naan day ndox mi di dem bi ci biir banque liir day banque liir bi liir bi boo ko wasinee ba jur ko boo ko xool da daw noppi day taqarib ak ban bët yi ak laas yi bopp bi déf yi mu ne pat gémmiñ ngi yaatu mu liir boo xam ne yow du lay wóor ne laa na defar ak wér di lay indaale appartement yu bare bare bari ndox mi ngi di naan moo ko jox plomb fu mu fekk ab ëmb yàqu te ndox mi ngeen di naan lépp lépp plomb la dama ne nouvel ordre mondial yii mu di dégg yëpp dara du ci dëkk ki pare pour wàññi saw xeet ki pare jóg taxaw internationaliser ko ba ñoom ñëpp ñu bokk ànd ci wàññi xeetu nit ku ñuul ñoom ñëpp ñu ànd xam ne la progression de l'islam en Occident lu doy waar la pour ñoom ba nekk panik ñooñu bu ñëwee ne baal ma jox la am ndox nga di ko naan dama yoroom xel moo tax maa ngi invité autorité yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak kilifa yi nekk Touba am ndox yomb naa am am ndox yomb naa am te du ngeen génn bawal may interpellé waa Hizbut ya di ngeen jàng ci ay kuréel doy na sëkk dama ne diplôme bu ne nee ngeen am ngeen ko kon war ngeen a mën a jóg waa Touba naan ba màndi dama ne diplôme bu ne yéen a wax ne am ngeen ko te li yàlla bind te caa boole am ndox te nit fu nekk fu ne am ndoxu ko foor a jiitu kon seen xam-xam dama bëgg ngeen jóg def ko ci xam-xam bu technologie surtout jamono jëm lépp a yomb avec cette modernité artificielle cette technologie artificielle ak surtout surtout ce package bi nga xam ne mooy le l'informatique maanaam la progression de de, de l'information loo bëgg a xam fi nga toog koy xamee jóg leen ngeen jàpp ci Bawol River nga xam ne Bawol Bawol yi bu njëkk ceeb sax dañ ko daan bay te ra am na roq yoo xam ne boo gasee fukki mètre am ndox ci Bawol Tuuba nekk ci biir Bawol li ngeen dem ba Lac de Guiers di jëli ndox mi defe naa ne bu ngeen amoon ñaar fukki teen teen bu ci nekk am diamètre lu mu dee dee diamètre sept mètres huit mètres neuf mètres ba dix mètres am profondeur u cent mètres ndax boo gasee trois am ndox ngeen am profondeur cent mètres bassin yooyu teen yooyu teen yooyu mën naa remplir ay bassin yoo xam ne yi Mbàkke la ñuy nekk yi nekk Jurbel yi nekk Tuubaa ba Daaru Musti teen yooyu ñooy manque ndox mi di leen duy te en même temps pompe yooyu mën naa produire électricité dama ne pont yooyu bi buy manq mi ngi produire électricité en même temps forme groupe lay doon kooku compagnie bi koy liggéey xam naa leen ña nga California damay ko jóg ci suñu bopp kenn jóg ci suñ bopp sëriñ Tuuba jaanam wàcc na taalibeem yi nag bu ngeen fexee ba tubaab bi di leen wëgg di leen wëgg daañu dee ñoom ñëpp benn murit bu ne bu gasee un mètre un mètre képp lay gas waxuma la Tuuba waaye Sénégal gépp mën nañoo naan ba màndi dama ne sëriñ Tuuba lim mu bëggoon ci Tuuba yàlla defal na ko ko fii mu yem nag nun noo war a futti mbubb yi te bàyyi wayaan bàyyi xuloo ak ñi dundee yoon wi ak boo dee sëñ tubaa ñu ne noonu sëñ tubaa laag ñi nga xam ni da nga am wax ak yalwaan ak woyaan ci la seeni maam mës a dund ñoo ñoo uuf sëriñ si jege leen lu ñu wax du dëgg seen biir ak seen tubooy ak i fen képp mu leen fa bàyyi waaye jóg jot na jóg jot na surtout le Sénégal dans sa globalité lii metti na lii aw tiis la walla mu romb aw tiis doon mbugal dama ne yontu yàlla loot ci jamonoom fee suuf sa daa yëngutu woon saware si tàkk waaye li xew Sénégal li xew Sénégal dangay ngay dee ndànk-ndànk di dem di dem ba far maanaa oo métti ci ngay nekk ba génn àdduna mbugal mënu koo paase mbugal mënta paase nga moom sam ndox ab tubaab dikk jóge ca di jël sam ndox di la ko jaay yow nga di ko naan kooka heure bu boo ko fayul mu posé na la waaw ndox mi jóg ci jot na dama ne dama nekk fii aux États-Unis di liggéey parfois ak hôpitaux yu bari dañ may woo pour interprète wala ma am malaat bu fi ñëw moo ko fa yóbbu mais Sénégal yu bëree bëree bëri ñëw fii borom alal yi li leen di rey mooy da ngeen di am xaalis jënd am xar toj ko def ci frigo bi defe ne yéen a ngi noos noosu leen de yéen a ngi posone seen bopp ndax Sénélec ci boppam ni muy distribuer courant bi baaxut di couper di tàkk di fay di couper di fay di couper di fay yow nga jël sëb dund def ko ci frigo bi donte ay jën la wala yàpp moo ci am weer te bis bi courant la coupé ñaar ba ñetti yoon te ñi defar frigo dañ ne ku ci def aw ñam ba mu congelé bu courant bi coupé génne ko nga lekk lépp wala nga sànni lépp te fa nga koy sànni na ko sànni foofu ne ay xaj duñ fa nekk di ko lekk yi de ñun nag ñu jiite suñ biiru rëy ah, jëlu yàpp def ci frigo bi muy coupé di fay di coupé di fay ñuy lekk loolu mooy rey xale yu baree baree bari mag ñi am xaalis moom ba dañoo dee ñëw Amérique faju kon jóg ci suñu bopp la souveraineté lu am solo la waaye seen o man ñeme naa yëkkati trois cent million jox ko Gaston Mbengue nga ne ko tëggal làmb le gouvernement du senegal alal ji nga def na ko ci stade bi stade bi stade bi ak arena bii bu ko Sénégal téye woon wala koppar yi toll nañu teg ko ci loxol usbul tarxiya wut aw yat tiim leen ni leen am ndox dana génn fekk juróomi at wala ñu rendi leen comme ni ko chinois yi defee dama ne léegi Sénégal gépp naan ba mandi ana waa université science lu muy jëriñ la science universelle une universalité boo xam ne ku ci sóobu gis dara la science l'outil des solution xam-xam xalaat moo tax yàlla ne boroom xam-xam yi lay waxal waxul jullit yi de waxul jullit yi boroom xam-xam yi laay waxal nu lànk bañ a xalaat ba fin dëkk fin dëkk tey nga xam ne kenn ku ne fa nga taxaw boo gasee cent mètres amum ndox defe naa buñ maree ci noonu la làmb ji ngi topp nag laaj bi ku ci am sa juróomi dërëm bëgg a siiw jox ko Gaston Mbengue mu tëggal la làmb xale yëpp si dof nañ ngir làmb joo xam ne furti furti xanaa boo bëree ba ñàkk tooy xib xasaw xonn xanaa danga nga dama ne Gaston soo bëree ba taq ripp xasaw xonn xanaa da sangu ah arena yi amul njariñ xaalis bi ngir ci arena yi buñ ko joxoon département de recherche yi nekk dans les universités am naa yaakaar ne daanu liggéey ah ñetti mbëri ñetti komba ñetti komba koppar yooyu ciy génn képp képp képp boo ko tegoon ci loxo isbul tarxiya ngeen abandonné leen fàtte leen fàtte leen bàyyi leen ñu liggéey dama ne daañu def seen transfert de technologie boo xam ne Sénégal gépp géppay waaru ak màggal Pepsicola day xam ñaata la ci màggal gi West dañuy xam ñaata la ci màggal gi ah waa Sobowa dañ xam ni am ci màggal gi mais ñun ñi moom màggal gi mënuñu ne am nañ ci juróomi dërëm mënuñu ne am na ci juróomi dërëm. parce que organiser wuñu du lenn lu problème mu gérance mënuñoo gérer ñun gérer xamul ñu koy defee dama bu màggal jàllee gàmmoo jàll bénéfice bu waate waawoon de waate woon xamuñu ko te maire ba xamu ko te keneen xamul ne màggal két ak gàmmo gi investissement bi lii la def lii la indi kenn mënu la ko cee wax waaye compagnie étrangère yi bu ndikkee ñoom daañu téléphoné seen i patron ni leen ñun kat màggal gi am nañ ci un milliard wala deux milliards waaye ñun xamuñu luñ ci am kon problème mu gestion boobu liñ gën a gaañ bu ñuy dem ca la bokk kën jóg suñu bopp jublu suñu bopp te xale yi jàng xale yi jàng ñii wër sëriñ si nag wër leen boo ubbee sa génn sëñ Tuubaa ñu la diaboliser ba nar a indi guerre civile ci réew mi ne leen xalife yi dëpp loo xarit lii ñuy wax ci xam-xam lañ ko teg te duñ dellu ginnaaw wéer ko ci archive dal leen te ànd ak seen sabo gën jublu ci ndox mii gën jublu ci ndox mii Sénégal gépp bokk naan ndox am na le fleuve Sénégal mi ngi fi Lac de Guiers fépp ba fin taxaw foo taxaw amul ndox kon ma jéggul te ñaan jàmm te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah man da Ousmane Dramé bu la réveil des consciences asalaamaaleykum waa waa Ndulo ñu ngi tey euh, Ndulo fii tey si ñàkk ndox bi si forage Ndulo si mbirum Aquatech léegi na ngi xool fii maa ngi si jàkkaarloo si kër Ami Diop ñii nu ñuy raŋale paan yi si mbed mi lan moo tax waa Tour euh, Touba si kanam ñooy ne benn cité ndox te ñépp jigéen ñi mag ak ndaw ñoom yëpp ñu ngi di rang tey pour jéem a am tuuti ndox lu ñu mën a dugale si seen biir kër yi kon coono bi la jigéen yi ndulo yi xale yi mag yépp jànkoonteel fii si si ndulo oto baa ngi nii may seen ni si kanam si naaj bu tàng bi yëpp ñii ñu ngi nii di jéem a kenn ku nekk jéem a xool nu ñu def pour am ndox kon mbir taat na lool xale yi ñu ngi nii jigéen yi ngi nii ñun ñëpp di war jéem a wóor ndox kon waa autorité dañu war a gestu waa ndulo yëpp ñu xool ñu ñu war a def di jëm uti ndox mbir mi mbir mi tar na lool lool lool lool lool lool xoole naaj mi mu tàngee nii yëpp ñii ñu ngi di raam vraiment métti na nañu gestu parce que mbir mi mënu continuer nii nu continuer xool leen xale yu gare góor yi jigéen yi yëpp ñu ngi ni taxaw yëpp pour jëm a ut ndox kon mbir mi métti na kenn nañu xool duñu ñu war a def waaw soxna si bisimilah. soxna si loo gi si coono ndox mi. sonn rek sonn rek. bilaay nekk naaj bi gis na ñu ngi nii naaj bi di root. bilaay jërëjëf kon leer na leer na kon mbir mi leer na yàlla mu sotti si jàmm ak salaam bi yëpp gouvernement ñoom ko teg seen mbaam mi yëpp dañoo wok ngir ndox kon nañu kilifay gestu ñu xam ñu daf léegi bii citerne yi fu bàyyi ko Touba la bàyyi ko. Touba si kanam moo indi fii ndox mi tey si Ndoulo pour waa Ndoulo mën a am lu ñuy naanee tey moo waral mbir mi tey kon dañoo war a gërëm bu baax a baax waa waa si kanam si lu ñuy def mbir mi du muy tàmbalee ba ko mu ngi tàmbalee depuis le 17 février boo tey jii waa Touba si kanam saa su nekk dañu gëstu waa Ndoulo pour yem leen indi ndox ñu ngi sutura ba si biir kër gi kon dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax a a baax tey ñu ngi si 14 ñu ngi ne di jéem a uti dox kon mbir mi métti na lool lool lool lool lool kon tey nag affaire jub moo yore pour ravitaillement waa dëkk bi yëpp ci mbir ndox mi voilà leen di gërëm den sant jërëjëf